ñi nga xam ni dañuy sànni ay kàdduy njaaloo di ko tuumaal wala boog di ko wax jigéen joo xam ne jigéen ju sànge la ndax bu ñu waxee muhsan rek mooy jigéen ju sangewu jigéen joo xam ne wax dëgg ku ku ku ñu xamul ci caaxaan la gisuñ ko ci lenn loo xam ne lu safaanu la mu ne képp ku yëkkati baatu mooy wala njaaloo ba teg ko jigéen ju mel noonu ah bu boobaa nag jigéenu jullit ku ko tuumaal njaaloo du simple du yomb kon ñu ngi dund tey ci jamono joo xam ni yomb na pour ñu yàq deru nit waaye koo dem ba am fitu yàq deru nit diine andi na lan lañu ñu war a régler yooyu problème wala problème bu mel noonu te mooy lan yow mi ko wax andil ay seede ndax yaa tuumaal sharia loolu la xam albayinatu li man daa yow mi nga xam ne yow yaa tuumaal yow yaa war a andi luy confirme luy saxal ne li nga wax am na te mooy lan ñu ko fekkee ay seede yi wane ne li nga wax dëgg la boo gisee ci seede ci diine da ngay mën a andi góor ñaari góor wala nga àndi góor wala nga remplacer benn góor bu nekk ñaari jigéen te ñu nekk ñoo xam ne dañuy maandu mais xoolal ci njaaloo mu ne ñeenti seede ñeenti seede danga ko andi yuy firndeel ne yow mii sa wax ji ni nga ko waxee ni nga ko gisee ñoom noonu lañ ko gisee noonu lañ ko waxee te loolu yombul de loolu yombul benn yoon pour na leen nag simple nga yàq deru nit noonu mu ne tamit bu ñu ko mënula def na ngeen leen yar te mooy na ngeen leen dóor juróom-ñett fukki yar bu leen yem foofu na ngeen leen classé ci société bi bu leen leen nangulati benn seede kon ñooñu wóoratuñu bokkatuñ ci ñu maandu ñi mu ne yàlla ne ne wa ulaayka humul faasiquun ñooñu daal ñooy kàccoor yi ku mën a tilimal deru jullit bu jigéen te amuloo benn firnde yàlla nee na baaxuloo kon lii ku ko xam da nga moytu yàq deru nit mu ne lu dul nag illa alladina taabu min baadi dalika wa aslahu fa inna allaha gafuru rahim mu ne nag lu dul ñi nga xam ne ah dañ ko def waaye biñ ko defee reconnaître nañ ne def nañu erreur ñu daal di wëlbatiku tuub tuub nag ci condition yi ñu nangoo tuub te mooy rëccu bañ a jëfaat jëf jooju set ci wecci ci bàkkaar boobu ak jëf ja su futteeku ca waaye tamit ne dootoo ci delloo ti mukk kon wa aslahu ñu rafetal fu ñu taxawoon yàq der rekk ñu defar fa taxawaat fa defar der boobu mu ne fa inna allaha ghafurun rahim kon daal koo xam ne rek rafetal nga yàlla moom laa kon la bu mag ku mën a yërëme la من والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين من نيغا خامنا ناك نيوم خاسوي خاسو نكو ريك جيجين بو نيو خام ريك ني واي دنجكو خاس سين سخنا kon bobu tamit dafa gëna sévère sa soxna ki nga nek ak ben mu jural la say dom ngeen wara and ci confiance mu dem ba am lu dox sa digënté te moy lan nga ne ko kat yow kan jaalo kat nga mu ne ko dem ba wax kaddu gogu nak sa soxna mu ne nak té fekk ah la nga wax amo ci sédé waaye nak man na nek deug nak gis nga dégg nga comme ni dal hilal ibn umayyah ndax nee na maa gis sama bët maa dégg sama nopp te ñu ngi koy andiloo seede waaye nag amaana bala muy andi ji ay seede fekk moom dem nañ seen yoon def nañ lañuy def ba pare mu ne kon bu boobaa li koy regle te yàlla subhaanahu wa wax ko mooy lan na nga andi ñeenti seede soo ko mënula am na nga taxaw ngeen waatoo na ngeen waatoo te waatoo bi mooy lan fexe ba wax ni ah maa ngi waat ci yàlla di seddaloo yàlla ne lii nga xam ne moom la ndef ndaw li ma wax dëgg gu wér la ñeenti seede yooyu amu ko kon seede yi boppam mooy ñeenti waat yu muy waat seedaloo yàlla ne li ma wax dëgg la innahu la min as-saadiqin waat naa ci yàlla ne li ma wax dëgg la juróomeel ba nga xam ne moom la ciy teg te mooy lan mu ne yàlla na rëbbu yàlla tegu ci sama kow su fekkee waxuma dëgg waa ji kon loolu lay wax ndax loolu rek lay wax mu yem fa déedéet ndaw sa tamit dañ koy woo buñ ko woowee ne ko ah li sa waa wax mu ne lim wax amul moom it kon ma ngay weddi waaye su ne ah ay la yéwén lim wax dëgg la bu boobaa kii kenn dootu ko waatloo muy jëkkër ji waaye moom tamit dañuy àtte ci moom àtte yi ku njaaloo waaye su fekkee dafa bañ moom tam ne li muy wax dara amu ci moom it kenn du ko bàyyi mu dem noonu dafay waat nan wa waatee muy jëkkëram te mooy lan mu waat ñeenti yoon ne waat naa maa ngi seddaloo yàlla ne waxul dëgg li mu wax lu dëgg amul ñeenti yoon la koy wax mu teg ci beneen juróomeel waat te mooy merum yàlla sanjum yàlla yàlla na nekk ci sama kow su fekkee wax na dëgg kon kenn ku ci nekk léegi wax nga défendre nga sa bopp ci say kàddu waaye nag muy kàddu yoo xam ne simple mu génn ci làmmiñu jullit de ndax taxaw ne lii maa ko def ci ku gëm yàlla ñu teg la àtte yàlla dafa gën a yomb ci waat di seddaloo yàlla ne lii nga wax dëgg la wala waat di seedaloo yàlla ne li mu wax du dëgg dem ba yegg ci ne yàlla na ma yàlla mbugal wala yàlla na ma rëbbu yàlla tegu sama kaw su fekkee li mu wax dëgg la wala bu fekkee ne li ma wax du dëgg kon yombul ci jullit mu tëb tëb rek foog ne waat bi dafa simple du ñàkk nga wax ko ñu ne ah loolu na yombul ci jullit bu xam dëgg-dëgg waat seedaloo yàlla wala waat mbugalu yàlla ak rëbboom tegu ci sa kaw waaye loolu nag bu amee ba pare nag est-ce que charia dafa ne waat ak wax joojook jëf jooju yëpp ñu def ko ñu àndaat ci néegu sëy ne déedéet léegi tàqalikoo am na te ngeen di dem te dootu leen mën a sëyaat abadan sëy moom effacé wu na si diggante ñaan ñooñu nga def xam ne def nañ liaan te mooy rëbbante nañ waatoo ba ku ne dem bu fekkee ne dafa am ëmb bu nekk sax ci ndaw soosu ci jamono boobu ndaw si doom jooju doomu yaayam lay doon waaye kenn du ko féetale jëkkëram jooju pour wane ne rek sëy bi day dagg tàppit dootul am raji du am delloo kenn mënul même bu sëyaatu nag nit du mën a dellu si waat ci waa ji tàqalikoo nañ abadan te bu fekkee ndaw si ma nga ëmb ëmb boobu du tax sax ñu ne waa ji comme yoloo doon sa yëg déedéet doom ja doomu yaayam lay doon waaye dootul doon jëkkëram jooju kon yàlla ne wa lawla fadlullahi aleykum wa rahmatuhu wa anna allaha tawaabun hakim kon daal ndeketee su dugutoon a ngëneelu yàlla ak mbaaxam bu mu wàccee ci seen kaw ak yërmandeem te yàlla nekk di ku mën a tuub baale di ku xereñ di ngeen dund ci ay lëndëm yu bare bare ak yu tiis a tiis kon mbokk yi lii am na luñ ciy jànge mooy yërmande bi yàlla am ci ñun bi mu am ci jaamam yi waaye li mu tëral ci ay àtte nga xam ne dafa ko lu dul rek ñu am jàmm moo tax yéen bi sallallahu alayhi wasallam sévéroon ci àtte yii bu waree taxaw dootu ci xoolati kenn dootu ci maslaa doy na exemple ci almaxzumiya muy benn jigéen joo xam ne du ñu fonkoon la ci euh, ansaar waaye mu jël mu sàcc ñu daal di ne ah wax dëgg kii notable la kilifa la wala da famille bi mu bokk ëpp na ñuy dagg loxoom waaw mbir mii moom ku ciy dem rek jéem cee wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni tey ñu foog ne àtte yi moom war na am famille ak ñoo xam ne ñoom kenn du leen ci boole ah ma comme dafa amoon cër ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nam ko soppe woon ndax xam ngeen ne Zayd na Haaris mi nga xam ne yonent bee ko yaroon ba mujj mu doomoo ko mooy baayam mu mujj tamit maanaam cofeel gi mu amoon ci Usaama cër bi mu ko joxoon ak li mu doon doon doon xale tax ñu ne daal lii daal nañ jëm ci Usaama moom daal xalaat nañ ne bu demee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci am dara wala mu wax ci lu tax mu deltu ginnaaw waaye ba mu ñëwee moom Usaama ñëw rek ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah foog ne war naa mën a wax lu tax Yonent bi sallallahu alayhi wa deltu ginnaaw daf ne ko أتشفع في حد من حدود الله تعالى ندخ دنجي نيان جيك تي لو خمني يالا موكو سنتاني من دما ورا أبلي كريك ندخ دنجي نيان جيك لو تول ني تري يالا سانكشون ما بومو تك تي جامو من دفما لو دو ورا أبلي كي يو ندخ أسامة دنجا أم دايوب ولا سانسان يوار تي ah ba mu waxee woon mu ne ko dikk leen nag mbooloo mi daje leen ñu woo saxaaba yi ñëpp daje yonent sallallahu alayhi wa sallam daal di ne innama ahlaka alladina qablakum annahum sariqa fihim wa ida sariqa fihim bintu muhammadin saraqat la qatatu yadaha li alagoon ñi leen fi jiitu mooy su amaan ci ñoom notable boo xam ne def na naka su dul noonu mu ne sax sàcc na bu amee ci ñoom ku sàcc te nekk ku bokk ci kilifa dañu naan ah kii daal ah nañ xool rek nu mbir yi rek mu ne su fekkee ne dafa nekk ku ñàkk doon benn pauvre wala boog amul ginnaaw ñu ne yée kii kañ moom luñ ko waxal moom la nañ nañ àtte ci moom àtte yàlla nañ dagg loxoom mu ne loolu moo alagoon fi jiitu maa ngi leen di waatal ci yàlla ne Fatima mii di sama doom su sàccoon ma dagg loxoom allahu akbar Fatima bintu Muhammad soppeem ba xaritam ba ak fa mu tolloon ci moom ku ko xam xam ne daan na wax ne Fatimatu bidaatun min nii Fatima dogit la ci man lu ko neex neex na ma lu ko naqadi naqadi na ma mu ne bu sàccoon ma dagg loxoom ma wàccee ci moom àtte yàlla kon loolu bu Buxaari ak Muslim solo nañ ko di wane rek li nga xam ne moo ci am solo